asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre ci seen site internet luttetv.com tey samedi 2 mars 2019 ñu ñëw ak yéen ci yéen comme ni ngeen koy amee chaque jour moo koy seq ak Jamaïcain borom Gambie borom Saloum borom Birkelane FM borom borom dëkk ba Kër Mandongo kër ma kër kër dëkk Moustapha Niass bi. Kër ma Jabel ak Kër ma Dikke foofu yëpp jamee jameekee yaa moom sa loxo nga ko téye maa ngi lay nuyu di la ziar. Lamine borom Loro borom Thiès borom Bambay Xombal Lamine maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la nuyu comme ni nga ko waxee nag tey ñu ñëw ak yéen ci euh, revue de presse bi Lutte TV point com Vice FM ba sa Gambie Birkelane FM ba sa saalum ñoo ci ànd tey nag samedi 2 mars 2019 ñu ñëw ak yéen ci journal bi Lamine yaay borom kër ma ndongo ndax yaa romb Mbour romb Fatick romb Kaolack romb Kaolack romb kër ma jubel dem kër ma ndongo la dem kër ma ndongo ni nga ko waxee Vice FM ba ci Gambie Mbirkilaan FM Babacar Sarr ak DJ Mo ñoo ngi leen nuyu di leen ziar comme ni nga ko waxee MSD Prestige ak MSD Impact gars yi ñoom ñoo ñuy gunge feccum liir nag bu neexee nday jaatee ca mbaggee Moustapha bu noo doomu nday guy gi nee na ma boo waxee MSD Prestige rek ma toj ndax ay oto lay jaay te réew mi nag ku fi jaay oto MSD Prestige yaakaar naa ne ñoo la ko dàqale ku fi jaay pièce détachée nag boo xamante ne mënoo ko am rek boo demee ci ñoom da ko am ndax ñoom ñoo koy jaay li ngay wax rek loolu laay findeer ñoom ñoo ànd ak ñun di liggéeyandoor ak ñun di def liggéey bu am solo moo tax ñi ñu jox leen bopp MSD Prestige si MSD lañ koy jëndee kon loolu seen liggéey rafet ku ci mel ni gil si mu ci Gambie moom nee na ma sama oto moom MSD ma koy jaay balaakat tamit depuis Angleterre ñoo ñëpp ñu ne MSD Prestige nañuy jëndee oto la ku soxla seen numéro mën ngaa def 77 227 07 84 beneen numéro bi nga def 77 cent 393 33 10 daw leen gaaw dañuy jaay dañuy luwe dañuy maye dañuy leble ñu ñëw ci journal sunu làmb coow li ndekete jeexagul man def yaakaaroon naa ne coow li jeex na ci diggante Siteu ak Ama Baldé waaye Siteu moom jeexalagul coow la ndax journal bi daf ko dalal mu wax nag li ñuy wax xët page ba mu fees ñaari page bu nekkee olof nag dañ naan am xët xët xam nga xët. waaw xët la def xët am xët la Siteu wax ba mu fees maanaam maanaam tey bu ñu doon àlliwa bi. xët gi yëpp dañ ko koo bindal Siteu lépp la wax wala dañ ko dafa wax bañ taal rëddal ko beneen côté bi mën a ñàkk Siteu nag la wax ci digganteem ak Ama Baldé daanaka moo ci gën a yaatu nag wax na ci ñaari xët waaye xët bu njëkk bi yëpp digganteem ak Ama Baldé ci la ko waxee dafa daf ko tëkku nag nee na Ama su yaakaaree ne moo ko man wala moo ko ëpp doole na ko jël daan ko loolu mooy wax ji wax ju bari ji jaru ko waaw loolu daal waxu Siteu la combat bi moom bu fekkee ñu ngi yaakaaroon coow li jeex na coow li jeexagul seen diggante ndax ñoom ñaar ñoo toll noonu ay nitu public lañ Siteu nag dafa xëy di wax journal bi di wax ak Ama Balde nee na Balde bu fekkee ne mooma man na ma jël daan ma ma xam ne mooma man ma jël wane ko mu mel ni tontu la ndax Ama Balde seetaan nañ ko ci BMTV ak Dakar Actu nee na bu nekkoon ci moom kese kese kese la des mu jël kàddu laa yor instant bi waxuñu ma dara jël naa ko dimanche ñu bëri man ak moom waaw Ama Baldé ban tàmbaa la ko waxee ak BMT bi waaye Siteu moom bu fekkee gars yi dañ doon xaar moytuwul Siteu wala amul lu muy raciste Siteu moom dafa teggi wax joo teg ko fële nee na Ama daal léegi pour mu wax leen lu leer loo xam ne yéen xamu woon su gars yi ne ko ah la loolu may moytu loolu mooy wax ji te dinaa leen ko leeralal yéen leen loo xamante leeral na ko moom Siteu nee na bi nekkul Ama Baldé moo ko bëgg moom nekkul moom moo ko bëgg mais combat bi combat peuple bi la waaw Siteu wax ba tey rek nee na ñi koy jiiñ naan moom moo bëgg combat bi ak ñi koy jiiñ Ama Baldé ñooñu am na lu leen réeree mbir ci biir combat bi tey nag laa leen koy leeralal man Siteu gars yi ne ko Siteu loolooy bi peuple Sénégal ñoo ko bëgg du man du Ama kon gars yéen ñi ciy wax naan combat bi combat la du combat dem leen gëstu ju loolu ba pare sénégalais yoo bëgg fu ñu jaar ci bi ñu ngi naan ñu Ama Siteu Ama Siteu Ama xaw ma dana am wala du am waaye Siteu moom wax na li nekk ci moom ndax nee na du góor goo xamante ne day xel ñaar wala muy am lu muy ragal wala mu am kenn koo xamante ni daf lay tiit waaw ñee ngi am ñaari xel naan combat bi dina am wala combat bi du am ñooñu moom ñu jot a wax loolu Siteu loolu moom toq na ci ay noppam moo tax dafa xëy di ko wax comme ni ko gars yi di waxee nee na combat bi moom léeruma dina am ak du am waaye bu fekkee dina am moom Ama Baldé na xam ne man pare naa pour moom Ama tamit bu fekkee du am xam na bu fekkee dina am Siteu xam na Abdou Bakhoum ku nekk seetaan na ko ci luttetv.com ak su journal sunu làmb waxoon na ci ba wax ci Siteu ba ne na dem juboo ak sëriñam boobu moo gën mu topp Ama Baldé di wax gauche di wax droite Siteu nag nee na Abdou amul lenn lu muy waxante moom lenn rek la am loo xamante ne daf ko yóbbante mooy na régler problème am wax loo xamante ni na ko te a di dugg ci ay mbiram. waaw Ama Baldé ku ko yor di Abdou Bakhoum ñu gën koo xam ci per Bakhoum moom moo yor Ama keroog bi mu waxee ba sànni Siteu ay tarak na Siteu na dem jubóo jëg sëriñ bi Siteu tontu na ko war ko ne am la tontu ba mu saf mbéjam kanam borom a koy fayul boppam yow boo amee lu lay laaj nañ ko sax ba xam Boy Niang sa adversaire la nee na jàpp na booy ñaa potentiel adversaire am la dañ fee waxoon nag booy ñaa ak Siteu du ñu bëre ba gis nañ Ama Baldé nee na combat booy ñaa bii passé Ama Baldé jëndal euh, euh, combat booy ñaa bii passé Siteu jëndal na ko benn bloc pour ay supporter am waaye nag Siteu moom jàpp na ne booy ñaa xaritam la waaye adversaire la

pare nee na Boy Niang 2 moom maa ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy kon ñoom ñaar am nañ ay relation yoo xam ne gëw ma làmb mën a nekk seen diggante du mën a ñàkk waaye journal bi tamit war nañu Alboury ak Ndiaye ñoom ñaar ñi nga xamante ñoo war a laale ci dimanche bi Serigne Modou Niang fa tëgg yaakaar naa ne combat boobu rythme ba dana bari xeex ba dana bari bëre ba dana bari te yaakaar naa ne boobu jamee ki xeex bi xeex yaakaar naa dana ak a mën a bëri. dañoo war a laale waaye seen laale soreetul ndax su ma jumul kenn ku nekk fu ñu toll nii dox nga fa nga jógee dox nga dox nga warate dajeeg seeg sa morom kii waree na bawal jëf si Alboury ma nga waree dëkkam ñaar nag incha allahu rabi suba lamin lañ war a daje stade Iba Mar moo fa jaar njaaytin rakko tafaatin bu xeexee mu neex bu tuutee mu neex Alboury tamit moo tax ñoom ñaar suba a gis combat espoir wala combat grand combat bu neex demal Iba Mar lamin journal bi wanaa nañu Siteu di ñu wax ne ki nga xamante ne mooy fëgg la moo koy entraîné ci wàllu boxe nañu Gris 2 ak Reug Reug ñaar ñi xam ne combat bi ma gën a yàkkamti instant bi mooy Reug Reug ak Gris 2 ñoom ñaar kenn mësu jee dégg mu ñen soxla naa combat boobu namm naa combat boobu noonu waaye seen jàkkaarloo nag li leer ba leer mooy dina am samedi le 9 mars fële ca da nga koo yàkkamte am foo ko waxee am na ñu ko yàkkamte te amaguñ fi ñu ko waxee sénégalais yi gën a yàkkamti combat boobu combat boobu moom bu fekkee da yàkkamte benn yow mii téye micro ba am sañ-sañ na ñoo xam ne yàkkamte ngi jooy fu ñu ko waxee kon combat boobu combat askan bi la muy diggante Gris 2 ak Reug Reug addunaa koy xaar muy nekk làmb joo xam ne xam naa ne ñoom ñaar incha allah rabbi kenn déggu ci muñal moo tax ñuy yàkkamti combat boobu ku ci nekk tey bëgg nga gis ñu ne diw muñal wala sàmba muñal ñoom ñaar rek ay sën lañ ay doomu Sénégal lañ bu ñu bëree kalamer gañ que le maire gañ ku réer ba àgg ci mooy mooy réer na ba kenn mënatu koo gis Gaston Mbengue nee nañ face ba mu amee ba léegi diggante Balla Gaye ak moom loolu journal bee ko wax nee Gaston moom moom a maanaam moom bu fekkoon ne xaalis la moom pees la wadd na si biir suuf ba kenn gisu ko moo tax journal bi xëy di wax ne Gaston Mbengue fan la nekk di ko laajte. di ko laajte kii tamit ay adversaire lay wër muy nekk réel bu lan saar yaakaar naa ne depuis combat am ak Nandi Fall amagul adversaire waaye nag instant bi mënatul a xaar moo tax journal wan nañu ko ma ngay dank ay kurpañam nag bu di wër kum ko dóor Jamaïcain kii bu ndax bu mënul am adversaire duñ la ko jox nga bëree ak moom war nga wutal ko adversaire Lamine bàyyi ma bàyyi la ko rek man nag maa ngi ci jëm ci ay mbiram di ko tal adversaire waaye mujjul sotti moom ne ko moom dafa bëgg a bi mu na mbëri lan war a wax wala. waa waaw non moom daal loolu la waxee nee na bëriwut ak Franc. combat bu neex a ngi noonu te yaakaar naa ne ñaari technicien lañ bu ñu bëree xeex ba du bëri mbapat ba moo ciy gën a bëri kii moom dana bëri waaye nag gëjoon naa bëre muy ki nga xamante ne mooy Garga Mbossé Zoss nag moo nekkoon chef de file du écurie Dóor Dóoraat journal bi nag wax nañu Ramdan dafa dafa gàddaay exil gàddaay na man leen gàddaay daa fàq chaque jour ma wax leen ko Ramdan daa fàq infra rouge daa fàq Bouzé daa fàq super daa fàq euh, ki ci yoof nu mu tëddee dumbul sama waa ji daa faq du euh, wuli na waaye man ak yow ñoo demoon jëli ko ndax daa am daa lekk avance su jàmbur jën kay rek daa faq. ñu des nañ ñu xaar ñu ñëw man ak yow bu ñu duggee foofu incha allahu rabbi koo fa nekk bu yeboo nga xam ne di ñëwaat ci réew mi ay jeunes lañ dañoo bokk ci làmb am ci làmb cër tukki neex na waaye dellu ci da cee bokk lamin fu ñu jaar ñuy wax ak ñoom ci loolu. Ram daa war a bàyyi faq gi. non moom day ñëw ndax am na ci lambu cër Ram moom xam naa da nga koy toon journal bi ko waxee noonu rek. yow Ram dégg nga ko keroog téléphone nee na ma Sénégal doon ma fi teg sama. non Ram loolu yabeewu ko ay mbokkam yabeewu ko waa Saloum yabeewu ko waa parcelle ga dëkk yabeewu ko sax waa Sénégal sénégalais duñ seetaan loolu ñu nekk États-Unis nekk faak Ram daan doon ay moromu Sénégal duñ ko seetaan muy toog états day ñëw fi bëre ndax dafa am cër ci làmb ci. kon da nga ko nar a jëli. bu déggul ma moom moo fa nekkal moo nekkal euh, écurie Dóor Dóoraat mooy chef de file na écurie Dóor de file bu dul Garga moom bu ko falul boppam tamit yoon a ko fal te dafa jaadu lu jaadu la Lamine lu ne fàng kenn du ko jeex maga ma fa nekkoon di sos créé écurie bi nekk chef sos génn moom sos ko ñu ngi koy séntu ci beneen wàll côté boobu xam naa buy nekk chef de file foofu la koy nekkee mm. moom léegi mu ngi ci politique bi saf si sàpp sos na ndox. week-end bi 2 ngi taxawaalu ci diggante Palmarin ak Adrien Senghor nag xaw boo ci dem jëli ko man nag moom bu soobee yàlla tey damay takk sama ngemb xëppoo samay gàllaaj dem jëli ci benn. yebal naa la maa ngi lay ñaanal dinaa toogal fii teel la course Lamine jàppal la nga dem jëli 2 millions ñëw indil ma ko fii ci kër gi kon nag Lamine demal. damay dem di nuyu gaa yi ñu suivre yëpp di tàggoo tamit di leen wax ni maa ngi dem bëre ji kot su jama maa ngi lay di nuyu laay bu def borom Sandaga Abdou bu xarañ loo sama xarit maa ngi lay nuyu di nuyu Mame Balla Gaye Italie Pape Daouda Djily Tarkinda ziar naa leen yéen yëpp sa mbër mi nag temps yi daa bëgg combat yow Djily Tarkinda di nuyu ki nga xamante ne mooy Tuuti Yaay Sarr Omzo bu Garga groupe Lutte TV point com maa ngi nuyu ñëpp di nuyu nag Jibu Wañ ak ki nga xamante ne mooy Babacar Sarr ca Mbirkilane tuuti yaay Sarr borom Espagne maa ngi koy jaar di ko jox wàccuwaayam léegi borom Sénégal la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax sama xarit sama lépp maa ngi koy jaar bu wér di ko nuyu di nuyu famem yëpp lamin di nuyu képp ku nekk ci groupe Lutte TV comme com di suivre Lutte TV di jàppal Lutte TV di ko dooleel maa ngi koy jaar di ko jox wàccuwaayam di nuyu ñëpp Lamine comme ni nga ko waxee ji di Tarkinda maa ngi koy jaar ak gars yi nekk Europe yëpp di leen nuyu ñu nekk Sénégal ñëpp maa ngi leen ziar kot su jabang sunu papa ñu ngi lay ziar bu baax a baax sa rakk Lamine nag nee na tey day dem làmb ji jëliku wala sa fils bokk non non non man man man rakam laa. fii sa fiisam nga man fiisam laa coach sunu papa kon ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu gaa yi nekk Europe yëpp. di nuyu Henri Camara rakam xaritam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di du ma fàtte tamit ki nga xamante ne mooy Masay Samb gëj naa koo dégg waaye xel yaa ngi fi xol yaa ngi fi di ziar ñëpp daal jàmm kenn di jox ñëpp rendez-vous. ñu ngi ziar ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay di nuyu sunu grand gil sunu xarit borom Gambie di nuyu waa Gambie fa nekkee ñoom Jinne Mori ñëpp di nuyu Aliou Ly Abdou ñu ngi États-Unis ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di nuyu Balaka Lamine mu ngi Angleterre ñu ngi ñuy suivre ay rakku gil si la ñu ngi leen di ziar Ba Diakhomba nga xam ne mu ngi fii ak soxna Anna Cheikh Bintou Fall yaay Sam sëriñ Mbàkke Mbàkke sang bi sama sëriñ Cheikh Corno Ba borom jili mbay maa ngi koy ziar bu baax a baax di nuyu nii nga jaar sunu xarit Lamine borom Espagne doomu ndeyu Diouf ñu ngi koy ziar. Jibi Sow maa ngi lay nuyu di nuyu Abo bu Yaraax doomu ndeyu Osod ak Serigne yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar di nuyu Mariama mu ngi ñuy ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko nuyu. jox ñëpp rendez vous lundi incha